al bii wax ci ñun dafa wax ne nee na xaal bu mu toll nii di waxee moom dafa wax ne ku xam ne bëgguloo sa aajo faju génnal dem nee na ku xam ne bëgguloo sa aajo faju génnal dem wallaahi wal quraan nee na wallaahi wal quraan aziim nee na ci daraja yonent yàlla Muhammad nee na bëggul kenn génn nañu toog ñu ngi yëkkati léegi jotaay nee na ñu ngi yëkkati jotaay bi. ndax dafa métti dafa xat. nee na dafa métti dafa xat. ku bëgg ku bëggul sa aajo faju. nee na ku bëggul aajoom faju. te la nga xam ne lu farata piir la ci yow. nee na lu farata piir la ci yow. ak farata piir la ci yow. ak lay farata piir ci yow. dogu naa si daraja yi. nee na dogu na faju. bëggul ci barkeb sëriñam yi dem nee na génnal dem. faju. nee ci daraja yi yoon nee nee na ci barkeb ismulaay azam akbar nee na ci barkeb xulafaawul arba nee na ci barkeb muhaajirina wal ansaar nee na ci barkeb si Ahmad Tidiane Sarif nee na yàlla faj na sa aajo yow mos xam nga ne nee na yow xam nga ne wallahi yaa xam ne yàlla faj na sa aajo nee na yaa xam nga ne yàlla faj na sa aajo de wallahi ñeewaloo sa benn morom nee na billahi ñeewaloo sa benn morom li nga man sa benn morom mënu ko nee na li nga man sa benn morom mënul ko nee na dañ koy nettali loo xam ne foogu ma woon sax dina am. nee na foogul woon ne dina am. dañ ma nettali na sëñ Babacar Sy. nee na dañ ko nettali na sëñ Babacar Sy. dafa am bis muy waxtaan. nee na dafa am bis muy waxtaan. ba yàgg mu naan jege si leen naan jege si leen jege mu naan jege si nañu. mu ni ba mu mu ne ñëpp ñëw nañu. ñu ne waaw ñëpp jege si nañu. ñu ni waaw si ñëpp jege si nañu. kon tëj nañ xadara mu ni waaw kon tëj nañ xadara bi. nekk ni ñi fi dana faj seen seen aajo mu bu ñu dee mu dugaleen àjjana sëñ Babacar Si moo ko waxoon mu ne loolu sëñ Babacar Si moo ko waxoon ñu nettali ma ko mu yéem ma mu ne ko ñu nettali ko ko mu yéem ko waaye tey mu ne waaw tey waxuma ne yegg naa te maqaam booba. ah nee na waxul ne yegg na ci maqaam boobu de. waaye jërëjëf dogu naa ci na ci daraja yonent. sa aajo narul faju génn mu ni ku aajoom narta faju na génn daraja yonent mu ni ci daraja yonent. daraja la wax. daraja yonent la wax de. sallallahu alayhi wa sallam. loolu doy na. ko yemale foofu. mu ni nañ ko yemale foofu. parce que euh, ndax baayam moo jàngal sunu baay alxuraan ma ngi nii toog. nee na baayam moo jàngal alxuraan waaye cër bu rëy ci ci place bi ñaari yoon. mu ni cër bu rëy la am ci place bi yoon. benn bi mi ngi ko am ci suma digganteeg sama nee na benn bi mi am ci digganteem ak baayam. ci des mu am ko suma digganteeg moom. nee na benn bi mu am ko ci digganteem ak moom. mu war may ubbil war may tëjal. mu ne mu war koo war koo tëjal. ndax loolu la ñu yàlla boole. mu ne kon ñu la ñu la ko yàlla boole ci place bi. ñu ñu niroo lool. nee nañ mu niroo lool. maa moom. nee na ma ñoom ñaar. ci lu bëree bëri macha allah nee ci lu allah. Ah, ay magam may ko ndigal mu nekk ak ñun. ay magam la ñu nekkal ñun. may ko ndigal. may ko ndigal. ak ay waajuram mu nekk ak ñun. ak ay waajuram mu nekk ak moom. ñu da lor lol nee na ñu di lor lol waaye muy muñ lor ya lol nag. nee na waaye muy muñ lor ya lol kon bisimilah Abdoulaye bisimilah. nee kon bisimilah Serigne Abdoulaye Ndaw. Serigne Abdoulaye Ndaw nee nee nuyo gor ak jigen gor ak jigen mag ak ndaw nee mag ak ndaw mbokk ak xarit nee mbokk ak xarit dëkk ak gan ak dekk euh, ndor dëkkandoor ci diko def ci sumu diko def ci lu ñaari magam yi Ousmane ak Ibrahima ak Ibrahima malin jëlal parole leen jëlal parole di wax may njëkkee na dafay da fay ma melal limu melal ak oustaz kon ñun ñaar nañ parce que ñoom ñaar. daf ñuy jox exemple. nee na daf leen a jox exemple. mooy misaal ci nee na mooy misaal ci doomu aadama yi. comme ak papaam. nee na comme ni papay Ousmane Ndaw meloon ak papaam moom Abdoulaye Ndaw. noonu laa mel nee na noonu la mel ak oustaz. nee na kon ñoom ñaar noonu lañ mel. oustaz mii nag ci lay njëkkee. nee na oustaz mii nag ci la dëkkee. ci lay njëkkee. ci lay njëkkee. kii ak ci suñu papa. nee na kii ak seen papa. kii ak ci ak suñu papa alhaaji bu ndaw. ak seen papa alhaaji bu ndaw. ndax kii di na kii di oustaz. bi nga xamee ne yàlla def na nee na bi nga xamee ne yàlla def na mi ngi dem bitim réew mi ngi dem bitim réew di def li ñuy wax mu xaamara di def li ñuy wax mu xaamara mooy dem jaar ci àll bi te duggaloo ci avion duggaloo ci bato nee na di dem di jaar ci àll bi te duggaloo ci avion duggaloo ci bato ci àll bi la doon dem nee ci àll bi la daw dem ci la doon dem ci la doon dem bi mu demee ba Haute-Volta nee na bi mu demee ba Haute-Volta waaw kooku kooku ci àll la woon boo xam ne. nee na la woon boo xam ne. moo ma ko nettali de. moom moo ko ko nettali de moom oustaz. te xam naa ne moom li wax dëgg la. nee na te xam na ne moom oustaz li mu wax dëgg la. parce que maa moom dañoo xamante. parce que ñoom ñaar dañoo xamante. parce que kenn ku nekk. nee na parce que kenn ku nekk. da nga xam sa morom. da nga xam sa morom. mu dem ci àll boo xam ne. nee na mu dem ci àll boo xam ne. dafa ñàng ñàng ba nga xam ne. nee na dafa ñàng ba nga xam ne. gaynde yi. nee na gaynde yi bukki yi bukki yi yi till yi till yi nee na ñay yi dañ faa bëri nee dañ faa bëri trop ba mu ba nga xam ne nii eh, xelam xaw na kii nee na bi mu demee ba nga xam ne xelaw xaw na jaxasoo dafa tourné rek nee na dafa tourné rek mel ni yàlla dafa yebal benn lu mel ni xaj nee na mel ni yàlla dafa yebal lu mel ni ab dawkat mbawkat daf koy garde na ñëw mel ni daf koy garde ànd ak moom nee na ànd ak moom di dox nee na di dox di dox di dox di dox di dox di dox ba loolal moom nuru mel ni mel ni dawkat. nee na ba loolu di nuru mel ni dawkat bañ demee ba jub dëkk rek. nee nag bi ñu demee ba jub dëkk rek. rek la la la ko gisatul rek. nee na la ko gisatul rek. mu xam ne loolu moo ko doon gardé. nee mu xam ne loolu moo doon gardé oustaz. loolu loolu nag. mu ngi jógee koo ci ay way koo ci ay juróom. moo tax ma ne leen. mu ne moo tax mu wax leen na leen. kilifa nee na kilifa. am na nee na am na de. ndax ku toog Sénégal fii. nee na ku toog Sénégal fii. sa doom nekk ci digg manding boobu. nee na sa doom nekk ci digg manding boobu. ci digg ma nee na ci digg Bamako. nee na mu lay xettali foofu. nee na mu lay xettali foofu. kilifa am na. nee na kooku kon kilifa am na de. moom rek laa ko nekk kon kii di oustaz. yaakaar naa ne ñu bëri dégguñ kii bu mel noonu. nee na kon yaakaar na ne lépp euh, ñu bëri dégguñ lu mel noonu. ñëpp ñu bëri dégguñ lu mel noonu. ci loolu kon. nee na te loolu kon. yaa moo lay wan ne. nee na moo lay wan ne la. wa annal fadla bi yadillaahi. nee na ngëneel mu ngi ci loxol yàlla de. yootihi man yasaa'u. nee na yàlla mooy jox ko ko neex. wala usul fatil asim nee na yàlla mi nga nee na ngëneel loo xam ne borom ak tedd te borom ma màgg yàlla moo ko jox ku ko soob nee na yàlla moo koy jox ku ko soob mais xaasal na ko ci moom nee na xaasal na si oustaz Babacar Ndaw mi toog kii dafa nekk hakim nee na kii dafa nekk hakim hakim ko waxee mooy yàlla rek mooy hakim. nee na buñ waxee hakim yàlla rek nag mooy hakim. waaye nag hakim boo buñ ko bu ko arabisan waxee. nee na hakim bu ko arabisan waxee. mooy ku xereñ. nee na def naan ku xereñ. atte na atte boo xam ne. nee na atte na atte boo xam ne. doyloo na benn commissaire. nee na doyloo na benn commissaire. doyloo na benn commissaire. na benn commissaire. benn commissaire boo xam ne. nee na benn commissaire boo xam ne. dafa amoon doomam. dafa amoon doomam. may ko benn waay. may ko benn waay. ñu am suñu benn kii may. ñu jël suñu benn doom. nee na ñu jël suñu benn doom. may ko kooku. nee na may ko kooku. aawa ba ak kii ba xeex. nee na aawa ba ak morom ka ñu xeex. ba mu ko defee mm, euh, ku mag ki gaañ ku ndaw ki. nee na bi ko defee ku mag ki gaañ ku ndaw ki. te loolu bu amee ci dëkku taax nee na te loolu su amee ci dëkku taax dañuy waral ne dañuy wut certificat médical dañuy waral ne dañuy wut certificat médical te bu loolu bu amee te loolu bu amee ki def li war nañ ko tëj nee na ki def li war nañ ko tëj te kooku ki def loolu nee na te ki def loolu eh, papaam commissaire la papaam commissaire la bi mu déggee loolu mu ñëw nee na bi mu déggee loolu mu ñëw bi mu ñëwee nee na bi mu ñëwee toog nee mu toog oustaz mii. nee na oustaz ndaw mi moo woo ndaw si. nee na moo woo ndaw si. xam ngeen ku gaañu ci loxo. nee na ki gaañu si loxo. xam ngeen dafay takk musóor ci baatam nee na dafay takk loxo musóor ci loxo baatam. takk takk ko ci jël loxo bi def ko ci nii. nee na mu jël loxoom bi roof ko ci. dafa ko ci demee ba baat bi mu daal di ne ko. nee na mu daal di ko wax ne ko. ndaw si il faut ma jaar ci tur. mu ne ko ndaw si il faut mu jaar ci tur. mu ne ko dindil musóor gi. mu ne ko dindil musóor gi. mu dindi. mu ne nee na mu dindi ko mu ne ko dindil bandage bi. mu ne ko dindil bandage bi. mu dindi. mu ne ko. mu ne ko tàllalal mu ne ko tàllalal sa bi. mu tàllal. mu ne mu tàllal ko. mu ne ko lem ko. mu ne ko lem ko. mu lem ko mu lem ko. mu ne ki leen def loolu kii kii kii dafa bëgg dafa bëgg indi saytaane. mu ne ki leen def loolu saytaane la dindil sa loxo. kii lii jarul loolu. mu ne kii jarul loolu. dindi ko jarul bandaas mu ne ko dindil sa loxo bi jarul bandaas commissaire bi dafa yooxu mu ne commissaire bi dafa yooxu na xàccet jooy. na xàccet jooy. daal ne moom atte bi ba moom commissaire la mais gis na atte ba taay mais gisul atte bu. bu bi daal wax ne gis naa atte ba taay mais musuma gis atte bu mel nii. mu ne bi na doom ji. ni mu ni bi wax doom ji ne ko. yow yaa bon. ko yow yaa yow mu ni ko yow. yow bu la kii tooñee. mu ne ko yow su la kii tooñee. mu am kilifa gu mel nii. mu ni mu am kilifa gu mel nii. ndax waroon a dem ci moom. ndax waroon a dem ci kilifa mu atte la mu ni mu atte la. mu ne ko tuubal ko. mu ne ko jógal nga tuubal ko mu jóg tuubal ko mu ne mu jog tuubal ko wante def naa ne tuub googu nee na waaye defe na ne tuub googu gannaaw gi kooku saa yu amee doom aaw bi moo koy. boot ba mu per mooy sang moo ngem mag yëpp. nee na gannaaw bu aaw bi amee doom moom mooy boot moom mooy boot di sang di def lépp. yëpp kii def na ko. nee na lépp kii def na ko. mu nekk borom xam-xam boo xam ne. nee na mu nekk borom xam-xam boo xam ne. xam naa ko trop maa ngi nee na moom Abdoulaye Ndaw mi xam ne oustaz Babacar Ndaw de. dama ko doon wax ne ko. nee na moom wax na ko de. naa ko téléphone benn bis. nee na wax woo na ko téléphone. benn bis ko téléphone benn bis. ne ko maa ngi lay je maa ngi lay ñaan. wax ko na ko maa ngi lay ñaan. bul mereeti kenn. bul mereeti kenn ku yàlla bind. ndax sa mer. ndax sa mer baaxul. baaxul ci jaami yàlla yi. ndax man gis naa ñu mu mere. ndax moom gis nañu mere. ñoo am na ñoo xam ne nii. ñoo xam ne am na ñoo xam ne. dañoo am problème mu soxna. dañoo am problème mu soxna. te wóor na ma ne mi ngi jógee koo ci mer mooma. te wóor na ko ne mi ngi jógee ca mer mooma. ak ak beneen boo xam ne nii. ak beneen boo xam ne nii. ah munu ma ko wax. nee na munu koy wax ci biir mbooloo mi. ne ko daal li may bëgg daal ku la tooñati rek. munu ko maa ngi lay ñaan ku la tooñati rek na nga ko baal ngir yàlla. nee loolu nag yàlla ak seen bay alaaji baabu no bi tëdd fii la ak bay alaaji yu ndaw kon nag. il faut mu wax ne. il faut mu wax ne. kii kii. yàlla may na ko. yàlla may na ko. bu leen gis sabadoor bu sew rek bu leen gis sabadoor bi sew rek. ngeen ne ngeen ne kii dafa sew. ngeen ne kii dafa sew. dégg naa Serigne Mansour si bu mag bi. nee na Serigne Mansour si bu mag bi. daan na ko wax. daan na ko wax. daan sol lu ñuy wax daan daan sol lu wax caax. ñi koy wax ñi koy wax wax ñi koy mooy borom ngàcc bi. ñi koy mooy borom ngàcc bi. xam naa dafa amoon tàngoor. dafa amoon tàngoor. xam nga loolu boo ko solee. xam nga lool boo ko solee. sa përëg day feeñ. sa përëg dafay feeñ. mu ne gisee përëg bii nii. ngeen gisee përëg bii nii. ngeen ngeen néewal ko doole. ngeen néewal ko doole. foog ne xamul dara foog ne xamul dara. ah am na lu yàlla may. mu ne am na lu ko yàlla may. waaye kii am na lu ko yàlla may wante Oustaz Babacar Ndamit am na lu ko yàlla may. mais loolu yëpp nag loolu yëpp nag. yàlla mu ngi ko defee ci. yàlla mu ngi ko defee ci. suñu wayjur seen wayjur. ndax suñu wayjur yi. ndax seen wayjur yi. dañoo liggéeyal yàlla. dañoo liggéeyal yàlla. te yàlla dafa waxoon adduna ne ko. te yàlla dafa waxoon adduna ne ko. yaa dunya. yaa dunya. ixdami. ixdami. man xadamani. man xadamani. wat xabi. wat xabi. man xadabaka. man xadabaka. man xadamaka. farata yàlla def na adduna yàlla def na adduna liggéeyalal ki ma liggéeyal man yàlla liggéeyalal ki ma liggéeyal sonnalal ki la liggéeyal sonnalal ki la liggéeyal moo tax ku so ku sonn ngir adduna moo tax ku sonn ngir adduna da ngay sonn rek da ngay sonn rek waaye ku liggéeyal yàlla wante ku liggéeyal yàlla doo sonn mukk doo sonn mukk adduna moo lay liggéeyal adduna moo lay liggéeyal moo waral bu bis bi ñëwee loolu moo waral bu bis bi ñëwee nit ñi jógee ko Gambeek nit ñi bu jógee Gambeek Fuutaak Fuutaak Dakar ak Dakar ak ku nekk rek fenn fu nekk rek kon nag ku gis loo xam ne nii kon nag ku gis loo xam ne man nga koo seede man nga koy seede seede wuloo ko seede wuloo ko bu boobaa naa fekk bu boobaa naa fekk nee na moom nag nekkul naa fekk ndax xam naa ne naa fekk juróom nee na ndax xam naa naa fekk juróom xam naa ko ci kii kon nag xam na ko ci kii te bis bii te bis bii it ku xam lu rafet ku xam lu rafet ci nit ci nit waxoo ko te waxoo ko dafay mel ni naa fekk dafay mel ni naa fekk la moom laa xam nee na moom nag moom la xam moom la am moom la am moom la miin moom la miin maa ngi wax li sëriñ Abdou Aziz mi ngi wax li sëriñ Abdou Aziz waxoon ne ne moom laa xam moom laa xam moom laa bëgg moom laa bëgg mooy moom laa ñeme moom laa ñeme parce que baat bu ma wax na ndax baat bu ko wax na parce que rek moo ñeme. ñeme. moo jeexal yëpp moo jeexal yëpp ndax nit ki da nga ko bëgg ndax nit ki da nga ko bëgg da nga ko xam da nga ko xam waaye doo ko ñemee wante doo ko ñemee mais boo ko ñemee nag wante boo ko ñemee nag rek mooy lépp rek mooy lépp dama ko xam da taa xam bëgg ko bëgg ko mu xam ma mu xam ko bëgg ma bëgg ko ñi ñeme wante ñi ñeme wante kon nag sëriñ bi kon nag sëriñ bi guddal naa trop Abdou Ndaw nee na guddal na trop maa ngi gàttal nee mi ngi gàttal asalaamaaleykum di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu benn baar rek la bëgg a laaj euh, mu ne benn baar rek la bëgg a laaj waaw ah, dañ ne alaaji abdou asis dañuy wax ne alaaji abdou asis da baax ne alaaji ne maam borom touba ne maam borom touba ñu koy wax ne da wax alaaji malik si di ko wax alaaji malik si maam mawda da wax sëñ mansoor di wax sëriñ mansoor da wax alaaji baabu ndaw di wax alaaji baabu ndaw da wax alaaji xumar ndaw di wax alaaji xumar ndaw kenn ku ne. kenn ku nekk. fi nga jaar la Oustaz jaar. fi nga jaar la Oustaz Ndaw jaar. lu tax tuur Oustaz yi duñ ko génne ñu wax sëriñ. lu tax tuur Oustaz yi duñ ko génne ñu wax sëriñ. kii romb na Oustaz léegi. kii romb na Oustaz léegi. kon turu Oustaz bi. kon turu Oustaz bi. naa ko tey. nee na moom dindi na ko tey. sëriñ rek. sëriñ rek. waaw a xam nga li nga wax dëgg la. parce siraaj boobu kat. siraaj boobu kat. ci la sëriñ mooy siraaj mooy firi lamp. ñu jëlee sëriñ. moom. dafay leeral. dafay leeral. leeral di njëriñ di njëriñ ku ne xam ne ne jant bii ku ne xam ne jant bii moo ñuy leeralal moo ñuy leeralal moo ñuy moo ñuy jox lépp moo ñuy jox lépp kon moo tax ci loolu kon moo tax loolu eh, ci la sëriñ jógee ci la sëriñ jógee moo tax kon nag moo tax kon nag man nag yenn saa yi boo kii sax sëriñ bi laa moom nag yenn saa boo kii sëriñ bi la koy wax su ma ko téléphoné sax bu ko téléphoné sax ñaare sang bi laa koy wax sang bi rek la koy wax sang la sang la nag sang moom kon nag sang moom teral rek moo teral rek moo si baax alhamdulilah alhamdulilah waaw man dama ci benn baat waaw bay ba man moom mii bàyyi laa koy wax wax dama gisee moom ñeheen ma ne oustaz dama am benn soxla ca ñeheen mu ne ma mu ne ma duma ñaan warlu naa ko mu ne ko du ko ñaan warlu na ko ma ànd ak moom dugg ci oto yi mu ànd ak moom dugg ci oto yi dem dem dimiska dem dimiska ba ma yàggal suma ba mu yegg ak këram soxla sa faju soxla ba faju loolu la doon seede alhamdulilah su ma ne ko moom oustaz naw nee na moom yàlla ma béyee baari jëg wax yow waa seede dama daan tuuti rek euh, sëñ Abdou Ndaw wax mu ne euh, sëñ lu sëñ Abdou Ndaw wax barki démb ci seen siyaara bi barki démb ci seen siyaara bi. dama wax ne. dafa wax ne. àggaguma nag nak ma jëm waaye. àggagu nag fi mu jëm. sëñ Ibrahima Ndaw mii. sëñ Ibrahima Ndaw mii. ak ustaas mii ak ustaas mii. ak Abdou Ndaw mii. ak Abdou Ndaw mii. ak Adji Hamine. ak Adji Hamine. ñun luñ bokk bokk sant Ndaw. ñun luñ bokk bokk sant Ndaw. xamuñ ak ñoom. xamuñ ak ñoom. ndax ñoo bokk ndaween ndax ñoo bokk ndaween waaye ñoom dem nañ wéedu ji si njaane wante ñoom dem nañu wéedu ji si njaane bokkuñ ca njaane ñun te ñun bokkuñ ca njaane ñun Euh, haali ndumbe mam haali ndumbe mam haali ndumbe diane mam alaji babu mo jur mam alaji babu hummi mo jur yaayi oustaz mi jur yaayi oustaz aboubacry ndaw mo jur mam alaji mod diane mo jur mam alaji mod diane aliw ñu nekk ni jaayi alaji aliw alaji mod bode alaji mod bode alaji babu bode alaji babu bode kon ñun suñu bokkee ñoom sax kon ñun suñu bokkee ñoom sax sant ndaw sant ndaw am nañ càq bu ñu amul am nañ càq bu ñu amul ñun doomi bàyyi moo tax emale ku leen bu ñu emale ak ñoom moo tax ku leen emale ak ñoom nga juum li nga wax ci li nga wax Euh, sama benn taalibe baay. nee na benn taalibe baayam. de sama goro. di goroom. mi ngi ko may jabar mu ànd moom. na mu ngi ko may jabar mu ànd ak moom. goro booba. goro booba. dafa tuddee sama baay doom. dafa tuddee baayam El Hadj Aliou Ndaw doom. Afrique du Sud. xalabat nekk réew mi mu baxoo koofa. Afrique du Sud. i pexe pexe. ba dugg Hollande. ba dugg Hollande. ba mu ko defee na ko defee ci na leen. bu kenn jéem li ma def. bu kenn jéem def. ku boo sàggane da nga ci des. ku ko def boo sàggane da nga nekk fa ab diit. moom it fa ab ko kere kaso. ba yàgg ñu ne ko kere ci kaso. mu am fa juróom-ñeenti weer. mu ñu am fa juróom-ñeenti weer. man dem naa ci lu ñu ambassade. nee na moom dem na ci ambassade. lu niroog ambassade lu niroog ambassade. ma tawat ko ko. mu tawat ko ko. fekk sax numéro téléphone la jël. fekk numéro téléphone am la jël. bi ko téléphoné. bi mu ko téléphoné. uyuwut ko uyuwut ko. waaye mu ne ma numéro bi daggut. wante mu ne ko numéro bi daggut. daggut de. daggu de wante nag ñun luñ xam wante ñoom lu ñu xam ci xeeti gëstu ci xeeti gëstu ak ñim doon jëflante ak ñim doon jëflante yëpp gëstu nañ ko gëstu nañ ko kenn xëyul kenn xëyul kenn xëyul kenn xëyul kenn tanul ci moromam kenn tanul ci moromam lépp bokk fuñ jógee lépp ñoo jëpp fuñ jógee ci moom xale bu ku nekk Dakar ku nekk Dakar kim daan yónnee xaalis kim daan yónnee xaalis dikk ci oustaz mi na ko dikk ci oustaz mi na ko ay fay bëgg a xam kat ay fay bëgg a xam kat mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko man de ku ma daan jox xaalis ci bitim réew mu ne ko man de ki ma daan jox xaalis ci bitim réew juróom ñeenti weer a ngi juróom ñeenti weer ngi aw ma benn xam-xam ci moom aw ma benn xam-xam bu demee nii man aw ma benn seede nee na moom amul benn ma layal ko kay layal ustaas ne ko ustaas bu neexee borom xaras bu neexee borom xaras balaa bis bee del si balaa bis xam-xam danga ci ba bis baa del si ba bis day papa papa tëdd ca kaso ba di nelaw fa di nelaw ci tàkkusaan ci ñu dikk rek na ko sa kosa ba mu génnee rek mu téléphone a Jabari Ñas yàlla defi nag waa ji Jabari Ñas yàlla defi nag Jabari Ñas fàttewut kàddu gi fàttewut kàddu gi ba ba mu ko waxee ne koo kan la aji ndaw mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ne ko fàtte wala mu ne ko fàtte wala ma mu ne ko déeréet mu ne ko dañ maa tëjoon ko fa wante bàyyi nañ ma niki tey waaye bokk ko jëkkër ji waxee moom mi tawatoon ustaas waaye bokk ko jëkkër ji yëg yëg jëkkër ji yëg moom mi ko tawatoon ustaas moom dafa yooxu rek ne dàll ci suuf moom wallu gu juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti weer kenn amul pexe kenn amul pexe kenn xamul ci kenn xamul ci moom dara waaye ak kere ba ustaan wala fa laa ko doon joxe ay seede sama doom di diir ci nag wi xajul tëj nañ ko fukki weer ak juróom mu ne doomam tëj nañ ko fekkee weer ak juróom bokkam yi weex le nañ ci lu man ñaar fukki junne ak ñaari xar mosuñ ma koy wax mosul ko koy wax keroog bañ ma ko waxee keroog bañ ko ko waxee ma wax ko ko mu wax ko mu suba Cheikh Tidiane dana ko tëj mu ne ko suba Cheikh Tidiane wallaahi yéen a ko seede ñu doo koy seede alhamdulilah jërëjëf ay seede loolu lii Oustaz Babacar Ndao di ko siyaare mi mi ngi feddali wóllëre ndax xam na ne yëfi gàtt na ba pare kon ñi gën a gàttal rek seen kàddu sant ak gërëm ak feddali wóllëre ak di siyaare ci bis bi di xamal mbooloo mi ne nee na keroog da ko doon ñaanloo keroog gàmmu gént pël mu ne ko man de dama am soxla oustaz ak sama xarit boo xam na ñoo bokk benn soxla mu ne ko soxla si yëpp na mooy xale bu jigéen bu ndaw ñu bëgg nga ñaanal ñu yàlla mu ñu def ko soxna mu nekk si nga xam te mu yomb lool taa nag ndimbal te gaaw nee na keroog ba mu ko waxee Oustaz ko Ndaw mu ne ko bal ba na mu ne a ah, mu ne ko des na si yéen nag te suba ga rek de dimanche ja rek nee moom la takk góoram. ndax kuñ dee nga ñeme ba ko waxee des na si yéen nee na moom la takk groupe daal départ dem nee na soxna si moomu nee na jël na soxna si ba ànd nañ ñëw fii nee na beneen xaritam ki ko tono moom itamit dana jël ci fan yi kon ñu ngi ñaanlu yàlla defal ñu suñu jàppandal nee na sëñ bi ba tàkk na nee nekk bala foosé nee nekk bala kënu bomb la nee ñaan goga bomba dafa dal delu dal neena ko nak na dala dala dal alhamdulilah nee na li waaj waxoon ñu ñaay ñaan nga yag fi lol yag fi ñir ñu rew mi la suñu dimbal la suñu di jaabala kon ñi ngi ñaan loolu nga ñaanal ñu ko alhamdulilah waaw sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ bi man de man de dama xam nee na moom dafa am njaboot yoo xam ne njaboot yoo xam ne daf len jafe dom daf len jafe ma ci ñaan mu ciy ñaanlu. parce que xam naa ne bi. courant bi. branché na branché na. te naa ko te naa ko bu baax xale ba. mais mi ngi dégg jooy xale ba. li si seede mooy dafa am benn euh, waaye bu dëkk Kër Modou. mu ñëw kas rajo bu oustaz Babacar Ndaw bëgg doom te ñaanlu na ci yow dinañ fu na doom xamut ko. moo xam ne ma ne ko demal nga tawatul ko sëriñ bi ma ne kay mun na fu na yéeg na ci maqaa boo xam ne. bu la ko ñaanlee danaa la bu juddoo na nga ko tuddee Mohamed Abdoulah barki démb la waa juróon ngénte ci Kër Modou xam na doom kon loola bal ba tàkk na na nga ko tuddee Mohamed Abdallah góor lay nekk ñoom ñëpp Mohamed Abdallah incha allah incha na boppam nee na soxlay boppam taxul muy wax nee na yow xam nga moom xam na waaye dama amee sama jarbaat boo xam wante dafa am jarbaatam boo xam ne baayam nekk kenn ci kër gi ci kër ni jaam alaaji Aliou Ndaw loxo ni jaam alaaji Aliou la doomam ñu ngi ko téye kemtalaay luy bëgg mat fukki at ci kosa gi nee na dem na njaarim dem na Touba fenn fu mu am yaakaar dem na fa mënta fexe ba am benn bunt sama xel nag moo dëdd woon nee na xelam moo dëdd woon waaye waaye lii ñuy wax waaye lii ñuy wax ci man la ci man la njëkk ci moom la njëkk xale bi daal bëgg na bis ni ka tey yow ak say doom doomi baay maa ngi leen koy ñaan mu ngi leen koy ñaan barke sama nijaay alaaji Aliou Ndaw ci barke nijaam alaaji Aliou Ndaw ah, barke sama nijaay alaaji Baabu Ndaw barke sama nijaay alaaji Baabu Ndaw balaa weer wee dee balaa weer wee dee nee na moom du am xappal boppam nee na bëgg na xale bi nga ñaan mu génn sëñ mu ci daraja yonent Yàlla Muhammad xaw ma benn fan xaw ma weer xaw ma ñaari weer nee na xamul benn fan xawul ñaari weer wante da nga xëy rek mu nuyu la ci mbetteel dana la bett insha Allah insha Allah ci daraja yonent Yàlla Muhammad insha Allah dana génn insha Allah insha Allah ndaw mii xam na ne day toog ba mu yàgg mu téléphoné ko Dakar nok abdi tey ñaanal ma si Ismaïla Akbar am naa soxla boo xam ne mënta yenn am naa soxla boo xam ne mënta yenn

soppeem seesti na soppeem te yonent fu mu toog te yonent bi fu mu toog ku fa toog ku fa toog yàlla faj sa aajo bu ñu neexee ñu ñaan bu ñu neexee ñu tasaaroo waaye nañ ñaan ndax jaami yàlla la xettalu ko ci daraja yonent bi ku sopp kër gi la ku sopp diina bi la ku topp suñuy kilifa lañ ku topp suñuy kilifa lañ. ku topp maam El Hadj Abdoulaye Niass la ku topp maam El Hadj Abdoulaye Niass la. ku topp Baye Cheikh Baye boppam dana am lu may moom waaye buy ku ku ne ñaari dërëm. xaddiyaay sirif ñu jox ko ko ñu jox ko ko. Euh, du tere dañ jaaral dañ fa du tere dañ jaaral ma fu ñuy jaar moom. incha taala. moom mooy def ñaan gi. li mu doon wax gis nga. bi may wax naa yonent daf ñuy wéttale. bi wax yonent daf ñuy wéttale. fàttoon sax na mu yonent baa ngi toog seetal lu rek te sa yonent bi ngi mi ngi ni toog kon nag loolu mooy signature bi. mbokki jullit yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku si ne ci turam ak santam ñu ngi tey suñu kër sëriñ ki nga xam ne mooy Mouhamadal Mahdi nga xam ne turam rek dafa présenté jëmmam bu ñu ne Mouhamadul Mahdi yow mi jàng arab li sa xel daj mooy aju jubal ji tubaarkàlla kon moom lañ nekk ci soo tey ci ronam di taataan ay kàddoom yëg-yëgam ci bis bi ak mbégteem ci mbooloo mi sëriñ Ndaw ñu ngi lay déglu asalaamaaleykum wa mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen gërëm mu ne ñoo ngi leen di gërëm te it da leen sant bu baax mu ne te it sant bu baax te it daa am ci bis bi mu ne te it daa ci bis bi bi mu ne ndax bis bi bisu yonent bi la mu ne bis bi de bisu Seydina Muhammad la te Seydina Muhammad te Seydina Muhammad lépp lu nit a wut. sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne nit a nga koy wut. ci teraangay xëddina. a teraangay xëddina. ak teraangay àllaaxira. ak teraangay àllaaxira. ci moom nga koy wutee. ci moom nga koy wutee. kon euh, bis bi. mu ne kon bés bi. képp ku ñëw fii. képp ku teew fii. yaa xam xaajo bi nga ñëwee. moo xam xaajo yaa xam xaajo bi nga ñëwee. ndem xaajo bu neex yàlla la. ndem xaajo boo xam ne neex na yàlla la. yàlla dana faj xaajo. yàlla dana faj xaajo booba. ndax man yàlla seede na li may wax. mu ne moom ndax yàlla seede na li may wax. ismulaay lasam akbar. mu ne lismulaay lasam akbar bi ñëwut. siikar naa ko ci siyaare bi. allahu akbar mu ne siikar na ko ci siyaare bi. te euh, li tax ma di ko siikar sax euh, yomb. mu ne te li tax mu di ko siikar sax yombul waaye yàllaa a ko sant mu ne waaye yàllaa a ko sant alaaji Mor Lamine yéem naa ko lool mu ne moom yéem na alaaji Mouhamadul Mahi al Amin eh, lool ndax démb ci ajuma ji mu ne ndax démb ci ajuma ji dafa wax mu ne képp eh, siyaare bii mu ne dafa wax ne siyaare bii eh, lépp lu ci nit ñaan mu lépp lu ci nit ñaan mu xam te ismalaay man keroog ma ko góor jox mu ne te moom ismalaay lasit akbar keroog bi ko ko góor la lu gën la lu gën xalal gis nga ismalaay lasit lépp loo ci ñaan mu xam loo ci ñaan yàlla mu xam mu ne ma ndem lu neex ñaan ñeex na yàlla tamit lepp lu ma nit ay ñaan mo ne moo tax moom itam lepp lu ko nit di ñaan lo so toge e eh, wax ma li may ñaan lo so toge wax ko li nga koy ñaan loo ma naan la dem lu neex yalla daf la ci tegal ne la dem lu neex suñu borom la yalla nako yalla yalla nako yalla fa te dima ko waxe la ko yalla te mu ne nem ko waxe na la ko yàlla di ko yàlla fajee noonu la ko yalla di fa so bay na na ma mu ne ndax bayam moko wax ne ko mu ne ma do nit ni nag doom adam yi duñ leen xam yeen doom doomi mu ne ko yeen doomi alaaji babu ndaw yi doomi aadama yi duñ leen xam duñ leen xam ba abadan duñ leen xam ba abadan dégg nga ndax mu ne dégg nga نخ اسم الله الاسم اكبر ولي اسم الله الاعظم اكبر kooko siikaral. kooko siikaral. kooka ak nu mën a mel. kooka ak nu mën a mel. day dugg aljanna day dugg aljanna. te di laa hisaabin. te te la may dugg bi laa hisaabin. wala xiqaabin wala xiqaabin. dégg nga. mu ne dégg nga kon nga xam ne. mu ne bon ngeen xam ne. ñi ñëw ci ziyaare bi ñi ñëw ci ziyaare bii. nañ sant suñu borom. nañu sant seen borom. nañ borom bu baax nañ sant suñu borom bu baax eh, eh, seen moomeel ñëw ci ziyaare bii. mu ngir bëgg yonent yàlla mu ngir bëgg Muhammad bëgg Cheikh a Tidiane bëgg Cheikh a Tidiane bëgg Seydi a Baaba bëgg Seydi Alaaji Baaba Ndaw bëgg doomi maam Alaaji Baaba Ndaw yi mu ne ñoom seen aada day faju si àdduna faju it ci àllaaxira mu ne te lu wér la gannaaw li ñuy dolli taalibe yi li ñu siy dolli taalibe yi mooy nañ fonk jaamu yàlla na ngeen fonk jaamu yàlla nañ fonk julli yu juróom na ngeen fonk julli yu juróom nañ fonk julli yu juróom na ngeen fonk julli yu juróom te da ko julli ci waxtu wa te da ko nag julli ci waxtu wa te da ko julli ci njàpp lu tooy te da ko julli ci ñàpp loo tooy te suñuy jabar nañ leen digal ñu julli te nag bu yem si seen bopp na yem dana ba ci seen i soxna nañuy digal suñuy soxna ñuy julli na ngeen di digal seen i soxna ñuy julli suñuy doom seen i doom nañ leen digal ñu jàng na ngeen leen digal jàng nañu jàng ci daara yi la ñu jàng ci daara yi ñi war a jàng xam-xam ñi war a jàng xam-xam nañ xam lu téere yi nañ xam lu téere yi nañ xam lu téere yi nañ xam lu téere yi jàng ko man de gërëm naa sama bay moom de gërëm na bayam te xam naa ne sama bayam a gën xam na ne bayam a ko gën amul benn xaalim boo xam ne amul benn xaalim boo xam ne danaa toog ak yow da nga toog ak yow dala ñee ci xam-xam dala ñee ci xam-xam amul ci àdduna du bu zahir du bu zahir du bu baati du bu baati xam-xam bu mënta doon mu ne ak xam-xam bu mënta doon ñëwul ci benn doomu am xam-xam moo tax sama bay moom a gën moo tax mu ne kon moom ndeysaan ndeysaan barkal barkal alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah dégg waaye mu kon waaye na ngeen sant suñ borom na ngeen sant seen borom man de gërëm naa yàlla moom de gërëm na yàlla gërëm naa alaaji baabu gërëm na alaaji baabu gërëm naa yonent yàlla muhammad gërëm na yonent yàlla muhammad gërëm naa seexu tijaan gërëm na seexu tijaan gërëm naa ñi ñëw fii te alaaji baabu gërëm na ñi ñëw fii te alaaji baabu tax ñu ñëw fi waaw te mu ne te da ngeen wax alhamdulilahi rabbil alamin da ngeen wax alhamdulilahi rabbil mii dëkk Kàccoor de sama xarit Ibrahima mii dëkk Kàccoor de xaritam bii fañ toog fi julli gaxee wér da ba pare ma def samay naafila julli pare mu def ay naafilaam mu ne ma nañ dem ci raw du góor ga ñu boo ko ne ko nañ dem ci raw du ga ñu ñaan ma ne ko Ibrahim bañ demee mu ne ko Ibrahim nañ def fukki péri salaatul fatiha ak ñaar fukki péri salaatul fatiha ak ñaar bañ paree ma ne ko bañ paree ma ne ko yow bu la neexee mu ne ko yow bu la neexee loo bëgg a ñaan. loo bëgg a ñaan. ñaan ko ñaan ko. ma jàng sur saaru yaasin. mu jàng surru saaru yaasin. bi ma ko jàngee. bu mu jàngee secret saaru yaasin. ñaanal na képp koo xam ne dana taxaw Medina. ñaanal na képp ku nar a teew Medina salaam. képp ku nar a teew Medina. képp ku nam ma teew rek. nee naa yàlla. wax na ne yàlla.

ma tëdd de nelaw. mu tëdd di nelaw. dégg nga dégg nga. foofu gis am na lu ma fa gis de. mu ne foofu de am na lu mu fa gis waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne. waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne. ñoom fuñ ñu mbóot. dañuy bañ a suñu mbóot dañoo bañ a uñu mbóot. dañuy bañ a uñu mbóot waaye ñi ñëw Medina Salaam. waaye ñi ñëw Medina Salaam. ñëpp dañu alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah dafa dafa dafa yéen kenn ku nekk ne yéen xaale ñetti salaatu fàtte def ko te bu may ñaanee ba mu kii. waaw waaw waaw. te képp ku ci xam xaajo xaajo bi bu ñaan yàlla na ko kii kii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 kon muy wuju borom mu bàyyi fi xalifatu alaaji Mouhamed Ndaw ci siège bi la laajee ñaata la am waxal na am na juróom-ñaar fukki at ak ñett xalifatu alaaji Mouhamed Ndaw bàyyam bàyyi woon ko siyaara bi li ko bàyyam bàyyi woon muy ànd ak ay rakam di ko def ñu ngi nag sukk ci kanam koo xam ne sëriñ Mouhamed Abdourahmane Ndaw la tëri na alxuraanu karim ci kanam baayam waaye wattu na ay téere ci kanam baayam am na ay jaar-jaar ci diine dem na ci ay dëkk jàng fu demee ni Ndar ak fu demee ni Njaari fenn fu nekk moom fa demee wala na fa xam-xam comme bi gannaaw boo no sa bay da jëlum dund jeexal ko ci bëgg yërëm te yàlla Mohamed gannaaw bañ topé ci say kanam mak top nañ ci yow ñi ngi ni di la suñu bop tay ëllëg di la laaj noo gisee siyaara bi nga xamne mo nekk suñu siyaara bay alaaji babu Ndaw xaadimu rohit ahsan lu bari dum nga def fekkee nga assalamu alaykum serigne mohammed abdourahman Ndaw serigne bi mi ngi sant yalla bu baax nee wax dëgg yàlla siyaara bi nit ñi ci taala bi nañ wax dëgg yàlla mi ngi sant yàlla bu baax mu ne mi ngi dénk ci bopp mi ngi dénk boppam dañuy dénk ñu góorgóorlu ci topp yàlla topp yàlla daal mooy loo xam ne képp ku képp ku la raw ci topp yàlla mën a tookay jot mukk waaw léegi daal nañ góorgóorlu ci taxal waxtu wu juróom ak nangoo liggéey loolu daal buñ ko defee. incha allah yaakaar na suñu baay. buñ dajeeg suñu baay alaaji baabu ndaw. duñu rus mukk benn yoon daw dëgg. alhamdulilah incha allah mi ngi sant yàlla bu baax. kàddu yi noonu dénkaane kàddu yi dëgg la mën nañ góorgóorlu topp yàlla di ko jaamu ak it ñu fas yéene liggéey doomu aadama nit ku du mën a gore fekk nangul liggéey nit ki du mën a am du mën a du mën a jaamu yàlla jaamu gu sax amul jom kon sëñ maam Abdourahmane loolu la ñuy dénk ñu wax ñu taalal suñuy loxo wax amiin fi mu ne fi mu ñuy ñaanale nii nag dafa nekk ci xaal bu tàllalee ay loxom buy ñaan secrétaire Seydina Mohamed toog na di bind yéene leen seen i soxla ak seen i aajo amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin amiin आमीन आमीन आमीन आमीन gën a moo tax ma xam ne bon defuñu bis bi defuñ ko ngir tey mbir mi defuñ ko ngir tey soxna Aminta nee na mbir maanaam mbir mi defuñ ko ngir tey rek bi bis bi ñëwat nee na bis bi di ñëwat def nañ ci ay def nañ ci ay jataay ngir soxlaay doomu aadama yi ngir ak xaajo yi yëpp ak xitte yi ak yaram yi sedd bi ak feebar yeeg jaaxle yi nee na jaaxle yi néeg yi. jaaxle yi bayteef yi. xaaj yëpp. diis nañ ko. diis nañ leen ko. dugg nañ ci suñu nopp. dugg na ci seeni nopp. ñoom it nag diis nañ ko yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nee nañ diis nañ ko alaaji baabu ndaw. alaaji baabu ndaw diis na ko yonente bi. yonente bi diis na Seydou alaaji baabu ndaw diis na ko Seexu Tijaan. Seexu Tijaan diis na ko yonente bi. yonent bi jël na lépp ko ci loxol boromam moom mi nga xam ne moom moom lépp moo xam lépp lépp lu yëngatu rek mooma bu ko defee ah ñoom de nee ci seeni kàddu daal mënuñu dara. xamuñu dara ci seeni wax. waaye yàlla mi nga xam ne moo am. moo man mooy def. mooy def mooy dindi. mooy dogal nañ ko suñuy soxla. nee na jël nañ loolu teg ko ci loxol yàlla. gàcc nañ suñuy soxla yàlla gàcc seeni soxla. nee na gàcc jël ngi jël nañ suñuy soxla yëpp ñu gàcc leen ko. ñoom nag wëlbateeku nañ jël loola teg ko ci loxol Bayraaj Baabu Ndaw Bayraaj Baabu Ndaw jël na ko teg ko ci loxol euh, naa Seex Seydina Cheikh jël na ko tekk ci loxol yàlla ci ci ci loxol bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jël na ko tekk ci maanaam loxol borom bi fa tabarakallahu taala kon kon kon nag nee na bañ ko waxee mu ne baayam daa waxoon ne xaaja bu nar na xaar xaaja bu nar ta faju wala feebar boo xam ne nar ta wér wala jigéen ju mën jigéen joo xam ne nar ta am doom yàlla bal mën a taxaw Madina nee na yàlla bul ta man mën a taxaw Madina kon nag ñun képp ku ñëw kon nag ñoom it ku ñëw rek ak sa xaaja lu mu diis diis ak sa xaaja lu mu diis diis ñun xam nañ ci na loola duñu ci ragal dara ndax xam nañ ne bay alaaji baabu nañ ne bay alaaji baabu ndaw xaritab yonent yàlla xaritab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent yàlla Muhammad yonent moo tax yàlla moo tax yàlla bind lépp la kon nag ñun. kon nag ñun. léegi yéen yéen a mbir mi desee ci yéen. nee na kon nag mbir mi desee na ci ñun taalibe yi. képp képp ku gëm. képp koo xam ne gëm nga. tey da nga fa jëlee tey da nga fa jëlee njëriñ. man de maa si gën a lot. nee na ci wa kàddum de. nee na moom moo fi gën a lot.